7 heures passées de 47 minutes ñu dalal fi suñu ñaareelu invité Babacar Mboup lay wuyoo donc nekk euh, jiite li nga xam ni moom moo di association ànd sàmm jikko yi ñu ngi lay nuyu euh, Babacar di la dalal ci plateau bi. soxna Sow maa ngi lay fay di am mbégte bu baax ci invitation bi. Euh, ñu fas yéene waxtaanee lu jëm ci seen euh, loolu nga xam ni euh, yéen a ngi ci depuis un certain temps muy wàllum criminalisation de l'homosexualité au Sénégal njëkk ngeen ko fële ci assemblée nationale mais malheureusement mbir yi demul tey ngeen rabattre wala boo ko continuer lancé boobu daal di dem amal démb ab mobilisation est-ce que mën ngeen dikkaat ci lu waral sax mobilisation boobu ak surtout impact bu mu am. waaw jërëjëf mobilisation bi li ko waral lu yomb la mooy dañu seetlu agenda bu Nations Unies yi bëgg ko imposer àdduna li yëpp nag alors Sénégal doon na bañ boo xoolee ëppee 2008 ou 2013 da ngay gis ñoom doon nañ bañ mais il s'est am na pression yu bari yu wàcc ci nguur gi ba finalement ñu seddee commencé di doxal agenda boobu depuis 2016 jëm 2026 alors loolu nag ñun bi ñu ko xamee am ci ay preuves yu tangible ci lañ jóg ni Euh, nañ jóg waxtaan ak askan bi parce que lii mbiru askan la kon ni ko président yaa a waxee sax d'ailleurs euh, hmm. gouvernement bi amuñu ci problème mais xam na ni mbiru askan la société bi ñoom xamuñu nan lañ koy jàngate alors ñu ni kon puisque réew mi république la euh, te askan bi yëpp ñoo ko seex ay citoyens ñoo fi dëkk alors mbirum penc la nañ ko indi ci penc bi ñu waxtaane ko loolu moo waraloon ñu def suñ tournée dem ci askan bi yëpp dem ci kilifa diine yi dem ci église bi dem ci diine dem bois sacré bi waxtaan ci ak ñëpp bi ko ñëpp àndee nag ni léegi nii lañ ko arrêté loolu moo waraloon en fait moo juróon euh, d'abord la première manifestation bu 23 mais moom moo waral aussi ñu dugaloon une proposition de loi ak ay député porté ko 13 députés yoo xam ne am na ci ñu nekk euh, Benno Bokk Yaakaar am na ci ñoo xam ne ñoo ngi ci opposition am na ñoo xam ne si bokkuñu fenn ay ay non inscrits lañ mm. loolu la ñu defoon bi ñu ko defee nag euh, soxna su dañu gis ni bureau assemblée nationale waxuma assemblée nationale nag mais bureau assemblée nationale la wax dañu jalgati yoon parce que dañu jox seen bopp ay sañ-sañ yoo xam ne yoon joxu leen ko xam nga dañ nekk ci réew yoon réew yoon yaakaar naa lépp lu ñu fiy def rek dañ ko war a tënk ci li yoon wax limité wu ci li yoon limité te bañ ko jalgati ba noppi yi tamit violé la loi dañ ko violé à trois reprises ba noppi jox seen bopp prérogative yi ma la wax d'abord première violation de loi bi mooy boo demee ci article 60 bu règlement intérieur bu assemblée xam nga moom moo yor procédure yi projet ak proposition de loi. Mhm. alinéa 1 bi dafa wax ne ñoom bu ñu jotee proposition de loi président assemblée na ko yëgal assemblée bi ñoom ñu constaté dépôt bi su ko defee mu bind bind par écrit mu bind ki indi woon proposition de loi bi wala ñi ko indi woon mu bind leen xamal leen ni yëgle na ko alinéa 1 bi loolu la wax loolu ba tey ñoom defuñu ko muy première violation bi deuxième violation bi. assemblée nationale euh, bureau assemblée plutôt ñoom bu ñu dajee ci benn mbir euh, ci lu mel noonu sañu ñoo bloqué euh, amendement wala proposition de loi amendement mooy xalaat boo xam ne député am na ko ci projet wala proposition de loi par contre proposition de loi mooy comme bi ñu dugaloon en fait le 22 décembre proposition nag ak amendement bureau assemblée sañu koo bloqué suñu koo rejeté li ñuy wax irrecevable déclaré ko irrecevable mm-hmm. lu dul rek dafa am incidence financière maanaam bu ñu bàyyee mu jàll bu doonee loi dafay soxla xaalis pour ñu mën ko doxal wa illa suñu ko bàyyee mu jàll bu doonee loi dafay aggraver charge yi réew mi tegoo wa illa mu am lu mu dagg ci ressources publiques yi ressources publiques fii rek la bureau assemblée wax li alinéa 5 bu article 60 bi moom moo ko wax. lan mooy taxawaayu proposition bi. ak loolu nga xam ni loolu la article bi wax. Euh, waaw xam nga ñun dañoo modifier rek benn disposition bu nekkoon boo xam ne dafa am élément yu mu jëlul en compte parce que c' est important soxna Astou loolu ñu préciser ko ni la loi la muy la loi 66 12 bu 12 février 1966 euh, notamment article alinéa 3 bi ci article 319 gis nga bi nu koy bind booba phénomène yi ma lay bëgg wax amagul ci àdduna LGBT amul woon. mais loolu il faut ñu tenir ci en compte ko orientation sexuelle et identité de genre amul woon ci kaw suuf loolu il faudrait que ñu tenir ci en compte mais évolution bi am ci contre nature aussi sur le plan international amul ci àdduna c'est-à-dire 1990 bi ñu koy déclassifié di ko retiré ci acte contre nature boobu amagul woon parce que 90 moo mujj 66 kon trois éléments yi yëpp war na tax ñu càmbaraat réadapté en fait disposition boobu ñun loolu rek la wax nañ ko modifier mm-hmm. dëppale ko ak jamono jël en compte disposition yoo xam si amul woon ca jamono jooju te yow xam nga xam nga bu baax ni euh, ni may misaale euh, li may faral misaale loolu mooy euh, tey suñ ñu woon da nga invité ay kilifa ci réew mi te benn chaise rek moo fi nekk ñu war a ñëw fii 2STV mais président la république day ñëw la gouverneur de Dakar dafay ñëw le ministre de l'intérieur dafay ñëw mais le préfet de dafay ñëw te benn chaise moo fi toog est-ce que le moo ciy toog déedéet du toog ci chaise bi président moo ciy toog loolu la ñuy wax hiérarchie des normes juridiques hiérarchie boobu dafa am lu mu tëddante loi bi ñuy waxtaanee nii li waral ñu bari bu ñu waxee noonu la non acte bi pénalise nañ ko ba pare déedéet du tout parce que moom niveau préfet la am ci misaal ñi ma misaal léegi nii dafa loi ordinaire la xam nga loi ordinaire loi organique moo ko tiim loi organique loi constitutionnelle moo ko tiim te ñooyu yëpp boo leen boolee ba noppi am na lu ñuy wax des lois supranationales moo tiim loi yi ma wax yëpp te loolu disposition la ci constitution bi. article 98 bi ñu ko rejeté ba noppi parce que yàgg ngeen quand même expliquer joxe genre argument bu mel ni que ni. Euh, donte euh, mu ngi ci code pénal mais dafa am modification yu ñu ci war a def. muy criminalisation yooyu. préciser également li nga xam ni moom moo di euh, lu ci nekk ci li ngeen di condamné. Mhm. mais tey après irrecevabilité bi nga xam ne déclaré nañ ko ko bindaat ngeen. pour gën a leeral li nga xamante ni moom moo di euh, yéen li ngeen bëgg tënk ci boobu boobule waa daal di koy jébalaat assemblée nationale wala fekku leen ci. non non bindaatuñ ko sa à dañu considérer ni ñoom dañoo jalgati yoon liñ leen di demandé mooy ñu respecté yoon rek loolu rek lañ leen wax ñoom amuñu droit bloqué ko ndax su fekkoon dafa am incidence financière ñun duñ ci wax dara dañuy xam ne ñun ñoo def loolu yoon mais ko amul insidence financière ñoom amuñu droit jéggi yoon. jox seen bopp prérogative yoo xam ne yoon joxu leen ko loolu moo tax manifestation dem bi li ñuy demandé mooy ñoom nañu respecté yoon te doxal li yoon wax maintenant suñu demee ba ci plénière bi député yu rejeté ko loolu dañuy xam ni su ñoom ah, ah, seen souveraineté la yoon moo leen jox sañ-sañ boobu bu leen neexee ñu rejeté ko. tey tey manifestation bi ngeen tenir démb euh, lan nga yaakaar ni tey mën na fa tukkee euh, toujours à propos de yéen li ngeen bëgg ban impact la mën a am ci loolu. mais déjà bokk na ci rek lu am solo. Euh, soxna su jotaayu dem bi am na solo trop d'abord ci képp koo xam ni teew nga fa rek yaa fa teewal ci say moyens yu bopp am na ñu jóge ba. sax ci réew moo xam ne du réewu Sénégal ñëw participer ci ngir xam ni ñun ñëpp la la menace bi tege suñu kaw la menace bi tege suñu njaboot. alors loolu moo tax sénégalais yi fi mu ne rawatina la jeunesse ak surtout jigéen ñi nga xam ne ñoom ñooy jur ñoom la seen doom seen doom mën a dugg ci lu mel nii. te duñ ko comprendre te ku ne xam na lien bi dox diggante yaay ak ak ak njabootam ñooñu ñëpp dañoo comprendre ni ndekete li ñu waroon def ñun askanu Sénégal yëpp def nañ ko waaye tey am na foo xam ni ñun ñëpp kenn mënu koo jéggi foofu lañ mën a yem parce que ñun dañuy respectuer aussi des lois li yoon wax loolu la ñuy def waaye nag fi ñu yoon yem loo rek foofu la ñuy mooy li ñu mënoon mooy def nañ plaidoyer bañ déposé ko ñiy jaay nañu doole léegi li ñu defaatoon rek mooy jël disposition bu ñu constitution bi jox mooy def manifestation pacifique mais foofu lañ mën a yem léegi nit ñi li ñu jàngate ci loolu mooy il faudrait que askan wi nag jëlal seen bopp actuellement la ñuy wax l'Assemblée nationale mooy bañ koo bàyyeete rek ak politiciens yi koo wax nga ni sama yoon nekkul ci politique bi xam nga tey les députés là suñ leen jëlee ñu war a contrôler l'action du gouvernement yii ñuy def yëpp ñoom seet ñoom la waroon ñoom ñoo waroon a saytu ba xool nguur gi li muy def ak li mu di def lan la parce que ñoom ñoo teewal askan wi mais suñu ko deful ba askan wi am initiative citoyenne boobu ba tollu ci fii askan wi gis nañ ci kon il faut que ñu am député yu mel ni 13 yi ma doon lim démb teñ porté euh, loi bi muy ku mel ni Abdoulaye Wilane député yu mel noonu lañ soxla te Abdoulaye Wilane mooy part mooy porte parole bu parti socialiste benn bokk yaakaar la bokk député yu mel noonu lañ soxla député yoo xam ne fu askan yu soxlaa ñu jóg wuy si leen député bu mel ni moom Mamadou Lamine Diallo ñu mel noonu lañ soxla nga xam ni ils sont toujours à l'écoute du peuple ils sont toujours à l'écoute de ceux qui les ont élus euh, soxna Assou gis nga loolu gis nañ ni démb nit ñi yëg nañ loolu gis nañ loolu te suñu delloo ci seen i département ñoom danañ waxtaan ci seen biir xool naka la ñuy fexe ba député yu mel ni ñoom Abdoulaye Wilane ñoom euh, Aliou Souaré ak ñoom Mamadou Lamine Diallo ak ñeneen ñi nga xam ne tudduma leen te ñu bokk ci ñi porté euh, la proposition de loi ba ci sëñ Mansour si Djamil député yu mel noonu la ñu soxla ak ñoom sëñ Abdou Mbacké kon ñu mel noonu la. askan loolu su ma mel ne euh, législative yi di ñëw yéen da ngeen ci fas yéenee soobu bu baax a baax. pour peut-être euh, campagne def ko euh, benn euh, campagne boo xamante ni peut-être dina tax ñiy voté bokk voteel ñi nga xam ne ñoom ñoo leen mën a voté bi ngeen bëgg. en tout cas man man man man bokkuma ànd sama jikko it bokkul ci ci ci ci ci ci ci ci. je veux dire mën nekk influence. mais bien sûr des des candidats wala bien sûr c'est logique c'est que ñu continuer dem ci askan wi xamal leen ni leen ni am na ñoo xam ni nekkaluñ leen fi yéen waaye. exécutif bi président la ñuy déglu li mu wax waaye seetuñu lu askan wi di bëgg ak lu bëggul am na ñoo xam ni dégluwuñ leen ay lobby étranger fi nekk ni la ñuy déglu loolu il faut que ñu leeral ko askan wi ba askan wi kenn ku ci nekk nekk mën a tànn sa bu la neex ndax ñoom ñoo am le dernier moo ci ñoom lay dellu mais il faut dékk ñu jéem leen a leeral ba kenn ku ci nekk am la bon information ba bis booy décider. ci jox sa carte kenn ki nga xam kan nga ko war a jox loolu moom il faut rek ñu def ko. mais tey yéen est-ce que am nga am ngeen bilan boo leen di tiire loo xamante ni dafa am benn euh, peut-être lu lu lëkkaloo ak yéen li ngeen doon def mu di euh, li ngeen di xeex muy criminalisé muy mbirum homosexualité bilan boo leen di def ci élection yi ñu génn parce que bëri na quand ay ponk yoo xamante ni euh, ku ci nekk yaa ngi koy jéem a attribuer vote bi sénégalais yi def ba ci sax yéen souvent ñu tudd leen si que ni peut-être li ngeen doon xeex wala sénégalais yi loolu lañ doon leen xeexlee en même temps est-ce que yéen am ngeen ci benn bilan boo xamante ni da ngeen jàpp ni seen moomeel la ci biir vote ci sénégalais yi def à oh. l'encontre du pouvoir bon xam naa ni ñun revendiqué wuñ ci dara mais l'essentiel moom sénégalais yi kenn moomu leen am na loo xam su leen xesee leer ñoom ñooy jël seen responsabilité déjà ñun am na ñu ñu koy reproché sax euh, ñu bokk ci euh, mouvance présidentielle bi euh, am na ku ma ci bokkal plateau directement wax nañu ko nee nañu porté nañ leen préjudice bu rëy ndax Euh, suñuy activité moo tax nit ñi ni léegi ñii ñoom ñooy jàppale góor jigéen yi ma ne ko ni sénégalais yi dégg nag ñun mënuñu ci dara l'essentiel daal dañ leen apporter en fait la bonne information ba tax na loolu <coughs> ñun jéemuñu ci euh, xëj na xëccu dara waaye taxawaay boobu ñu amoon nga xam ni waxuñu sax ni kenn voté la kenn te loolu tamit ñun du suñu cër waaye danañ fexe ba daal la bon information moom ñu teg ko ci loxo sénégale yi lu mu laaj nag ci sacrifice laaj ko ci engagement loolu ak taxawaay danañ ko def à partir de ces bonnes informations rek la nit ki mën a apprécier mais ajustir xam nga soxna su réew mi ñu ñëpp xam na ni réew mi ñu ñëpp ko bokk réew mi amul kenn ku fi am cër boo xam ni si da nga koo jagoo ñi des amuñu ko ñu ñëpp ñoo bokk réew mi kon lépp lu ñuy def ci tur askan bi di ko defal askan bi loolu véritablement kenn ku ci nekk war nga ci am ah une certaine vue boo xam ne mooy mën a tax nga mën a apprécier li ñuy def yow ci sa tur di ko def ci say nattangoo yeneen concitoyen mais loolu da nga ko war a xam am la bonne information ba li nga ci war a taxawee nga war ko taxawee malheureusement loolu amuñu ko xoolal dans les grandes démocraties ça comme ça. Mm. par exemple boo demoon tey ji en Suisse même les citoyens képp mën nañu sax dugal fi mu nekk nii une proposition de loi bind ko saisir en fait le parlement ni leen ñun lii lañ bëgg donc. puisque nag xëy na ñun démocratie boobu noonu xëy na forme boobu amuñu ko ci réew mi mais au moins d' accord nañ ñun ñëpp ni constitution bi li ma consacré mooy askan wi ñoom ñooy borom réew mi. kon nag borom réew moomu li ñuy def lépp kàddoom la ñuy jël alalam la ñuy jël li ñu def aussi moom la ñu koy defal c' est le principe du gouvernement du peuple pour le peuple et par le peuple. kon nag ñooñu dañu war a xam dañu war a am la bonne information xam nga dafa am loo xam ne si wax nañ ko démb la woon woon na est ce que xam nga loolu euh, soxna su la woon. la woon wonni na mhm. maanaam la woon xam nga wolof yooyu mhm. est que xam nga ko la woon maanaam le passé la woon waaw ma nga xam ne mooy li nekkoon loolu mënatul nekk ci Sénégal dama la jox benn misaal euh, dégg naa sama dëkk la xew woon président Senghor dafa ñëwoon alors ñu indil ko benn courrier xamal ko ni ko président Amical Cabral dafa gaañu mhm. euh, rey dañ ko bon puisque en plein meeting la ko fekk bon mu daal di joxe information bi daal di j'ai le regret de vous annoncer le décès euh, du président Amical Cabral nit ñi daal di tàcc wëy wëy wëy la même chose nit ñi parce que consigne bi ñu joxoon nit ñi mooy lu mu wax rek tàccu leen xam nga loolu loolu dépassé nañ ko. Hmm. alors il s'est trouvé que ni mais man quest qui se passe maa ngi wax ak nit ñi ko dee ñoom ñuy tàccu après ñu yéeg yéeg ci kaw ni ko président est que doo wax li ngay wax ci wolof mu wax ko ci wolof. daan ni dañ ma wax ni ma président amical Cabral dafa gaañu mu ci daal ni woo inna lillahi wa inna ilayhi parce que mi ngi soog a wax ak ñoom lu ñu xam loolu nag mooy ci wax ji ak ci jëf ji ci lu jëm ci askan wi loolu lépp danoo jóge ci tàccu leen lu mu wax ñu tàccu ko léegi nag di teg suñu bët ci li ñuy def ci suñu tur di ñu ko defal te jëfandikoo suñu kàddu ak suñu alal ak suñu doole loolu askan wi léegi dafa am droit ci xam ko bu ko assemblée nationale mënta taxawee moom mi nga xam ne moom moo censé contrôler l' action du gouvernement moom moo war a évaluer les politiques publiques moom moo war a voter les lois tey sukkandiku ci askan wi ak seen ngëm-ngëm ak seen gis-gis loolu su ko deful askan wi mën ko defal boppam. Mm-hmm. moo tax ma ni la la woon wane na. loolu mënatul am mais gis nañ fi ay si fan yee ñu génn rek ñoo xamante ni euh, dañ ne dañoo dem en tout cas euh, comme association ñoo xamante ni ci biir organisation bi lañ bokk dem nañ wax ak président ñu gis leen itam ñoo wax nañ en tout cas ay kàddu yoo xamante ni bu ñu déggee day mel ni euh, mbir yi am nañ benn entendement bu am seen diggante est-ce que yéen aussi. da ngeen mënul euh, peut-être def pas bu mel noonu démarche bu mel noonu wala vous préférez ne pas peut-être aller rencontrer le chef de l'État ah non de façon ñun président bu fekkee soxla nañu euh, euh, mooy njiitu réew bi bu ñu woowee dinañ dem wuy ko ci condition yi ñu ko war a dem wuy ña fa dem aussi vraiment man am nañ droit dem fa ndax ay citoyens sénégalais lañ am lu ñu tekki ci biir réew mi am dayo boo xam ne am nañ ko kon bu leen président wooloo yi tamit mën nañ dem wuyu ji ko en tout cas li ma xam ko rek mooy ñoom bi ñuy daje ak ñoom di gisee ak ñoom ay documents lañ leen jox bàyyi leen ko fa ñu dajee càmbar ko ba noppi soog a signé pétition bii nii kon nag peut-être xaw ma président lu mu leen tegaat seen loxo ba xëj na ñu def déclaration bi ñu def déclaration te ba ci man information yi ma mujjee am ñoom ñoo ngi wax ni ñoo ngi des ci ànd sàmm jikko bi tey te it ñoo ngi ñoo ngi ñoo ngi ànd ak ñun xeex bi kon nag man bon vraiment foofu la foofu lañ mën a mais la ñu waxante foofu yaakaar nga ne dina am avancement boo xam dina ko indi ci seen lutte am déet. Euh, ñun suñu lutte. Mm-hmm. Euh, maanaam ci. ci maanaam xeex bi ngeen ni xeex ak surtout yéen li ngeen bëgg muy criminalisation bi est-ce que boo leen gisee lañ fa jot a waxtaanee ak lañ fa jot a tenk yaakaar nga ni peut-être dina indi lu bees loo xamante ni yéen seen faveur lay doon. a ah, en tout cas man jeune pense pas jeune ne pense pas pour deux raisons benn bu njëkk bi mooy xam nga ñoom dañu wax ni am na lu leen président wax loolu doy na leen. danañu waxtaan ak mbokk yi cest à jublu ci ñun. Mhm. pour leeral ñu ñun boobu léegi ñoo ngi xaar ñu woo ñu pour laayee ñu biir parce que euh, ma wax la ci sa bi ay ay ay nit ñu gëm bis penc lañu nit ñu gëm dee ak dekki ak bis penc ba defam ba tax na fi mu ne bu ñu woowoon laayee ñu biir ba ñu xam ne ñun fii ñu taxaw du noonu dañoo juum dañuy dellu ginnaaw ci loolu parce que ñu man lool loolu lañ gëm amuñu benn problème ci loolu kon ñun ñoo ngi leen di xaar ñu woo ñu laayee ñu biir beneen bi ci des euh, li tax awma ci yaakaar aussi mooy le président de la république euh, vraiment ci question bi laajuñu ko ci xalaatam xam nga il faudrait que vraiment it ñu waxante li fi nekk ñun saisiruñ ko binduñu ko bataaxal ni ko président loo xalaat ci question bi parce que déglu nañ ko xam nañ li ñu fi xalaat un double discours mais woon rek gënoon rafet comme moom mooy njiitum réew mi balaa sax assemblée nationale mais bu boobaa dañ koy exposé ñun li ñuy def nii c'est pour le préserver moom la ñuy dimbali parce que déglu nañ ko 2015 mu wax ci question bi xam le ni ñoom état bi amuñu ci benn problème loolu ci itélé la ko waxee mën naa ko tudd fii. n'est-ce pas ñun ñëpp dégg nañ ko mu wax ni le guvernement amuñu problème ci loolu bu leen neexee yaataa yumbe ci réew mi am nañ gison sont libres de le faire kon moom gis nañ ni am na jafe-jafe te it suñu ko bëggee dugal ci question bi mën nañ ko exposer comme étant un chef d'État homophobe te loolu vraiment baaxul ci moom te mën naa am xëñ na du baax ci réew mi moo tax ñu ni moom nañ ko écarter ci question bi d'autant plus que du moom mooy def ay loi moom mënta def loi li mu man rek mooy dugal pro projet de loi mais moom du def loi ñiy def loi assemblée nationale la bu jotee projet ak proposition de loi ñoom ñoo ciy liggéey ba man ba mu mën a doon loi assemblée rek moo ko man alors loolu moo tax président ñun dugaluñ ko ci question bi assemblée la ñu fexe def plaidoyer ba mbir mi jaare foofu pour ñu mën a am loi alors koo xam ne nag dafay wut loi ñu xam ni réew mi réew yoon la aussi ñiy wut loolu moom mu bëgg a déggal ci kàddoom moom jafe am na wax naa la fii dernièrement bi ma fi jaaree ni la bari na fi sous son magistère ay question yoo xam ni jóge nañ ci pénalisation yoobu ko criminalisation. Mhm. alors moom ban problème la am actuellement mooy li jaaxal sénégalais yi moom quand il s'est agi de viol de bétail amu yoon problème daf ko criminaliser alors mu toog publiquement naan criminaliser mooy atte rey nit moom xam na ni Sénégal disposition rey nit dindi nañ ko fi depuis depuis depuis je pense dans les années 2000 peine de mort amatul Sénégal. dindi nañ ko fi léegi kon moom lan la jublu ci baat boobu mu wax pour tiital sénégalais la pour tiital je ne sais kilifa diine yow pour lan la nan la attee rey nit ak moom lan la xam ci diine bay wax rey nit ñoo xam ne si ñoom ñi mu toogaloon ñoom ñoo jàngi woon diine kon li ñu wax ci question boobu bu ñuy wax ci rey nit moom du moom moo ko war a wax ndax xamu ci dara waaye ñu mu toogaloon ñoo ko waroon wax ak ñu mel ni moom alors loolu bref daf lay wan rek ni la président ñun mënu ko cee déglu parce que il est dans le dilatoire deux discours la ciy tenir te tamit vraiment xam nañ ci ay jéego yu muy teg te waxoon naa la fii nii nit kenn du nit du li muy wax nit li mu jëf la soo waxee jëf dañ lay xool wax ji ak jëf ji bu dëppoo ñu xam ne as gor waaye wax ji ak jëf ji su wuutee ñu xam ni nag dañ lay bàyyee say wax te téye jëf ci parce que jëf ji mooy dëgg. Mm-hmm. te liñ gis mu koy jëf di ko doxal ci biir réew mi mooy mi ngi promouvoir cet agenda là mën naa am bis buy sotti du ko fi fekk waaye mi ngi koy doxal te loolu foofu la jëm te ñun bëgguñu ma faa. mais léegi euh, jamono ji euh, bu euh, comme assemblée bureau assemblée nationale bi. Mm-hmm. jéem ngeen fa fëgg marché wul tey def ngeen mobilisation prochaine étape bi lan la ñu mën a xaar toujours ci lancé bi ngeen nekk. mooy askanu Sénégal jëlal boppam assemblée national loolu moom danañ ci liggéey. loolu mooy seen prochaine. Euh, absolument euh, mooy askanu Sénégal laa wax nag waxuma ànd sàmm ji koy askan wi ci boppam. Mhm. na jëlal boppam assemblée téye parce que assemblée nationale euh, ndawi penc réew mi ca ngomblaan ga ña fa nekk askan wi lañ fa war a nekkal l' assemblée nationale la ñu wax. warul doon l' assemblée de l' exécutif wala d'un parti te gis nga soxna su am na ñaari problème Sénégal. Euh, wala bokk euh, ñaari euh, jafe-jafe yoo xam si bokk na ci yi ñu indi sunu kii yëpp mooy dafa am ñenn ñoo xam ne dañ leen a discriminer ci réew mi jàppe leen ay citoyens de seconde zone jàppewuñ leen ay ay sàmb surum gañ lañ leen jàppe ay nit ñoo xam ni tekkiwuñu dara loolu lañ leen jàppe mooy képp ku woo xam ne si yar nañ ci diine noonu lañ la jàppe boo demee ci article 28 bu constitution bi dafay wax ni kenn mënul bokk euh, la candidature d'une euh, de de la présidence de la république tant que mënoo lire écrire et parler couramment la français kon gis nga boobu discrimination mooy képp ku jaarul ci l'école française kon tu n'es pas habilité tu n'es pas apte bokk sax ci ñiy wut kàddu réew mi pour mën koo jiite loolu jafe-jafe benn bi gën a garaaw ci réew mi mooy boddi konte la xewoon Afrique du Sud lu ko gën a garaaw lañ def noonu te pourtant nit ñi yëguñu ko sax jàpp nañ ni alaaji Abdou Aziz baax jàpp nañu Cheikh al Islam Cheikh Ibrahima Niass maanaam ci constitution bi ñoom mënuñoo yor réew mi parce que amuñu xam-xam amuñu daya boobu loolu mooy benn jafe-jafe ci réew mi beneen jafe-jafe bi ci réew mi xam nga lan la mooy toujours dañoo teg réew mi ci ñetti wos xam nga wos <laughs> mais soxna si loolu garaaw na te te am na baati tubaab yoo xam ne am nga ko loolu nag da nga ko war a lijjanti was mooy. Mhm. xam nga cin. cin mhm. ñetti pieds yi koy téye. loolu la ñu tuddee wos d'accord was réew mi tamit dañ ko teg ci ñetti was bu doon cin la ñetti was moo ko téye muy pouvoir exécutif pouvoir législatif ak pouvoir judiciaire léegi ñetti pouvoir yooyu dañ leen a séparer principe séparation des pouvoirs la kenn yilifut sa morom bu fekkonte ni man dañuy wax ne am na ku yilif sax man je dirais que xam nga pourquoi parce que ki lay contrôler yilifoo ko te ñoom ñooy contrôler l'action du gouvernement le parlement mais on a constaté que depuis Sénégal di Sénégal ba tey parlementaire bi ak judiciaire bi même bu ñu jébbaluwul ci exécutif bi tamit très souvent dañ koy régleel ay problèmes yoo xam ne si dafa mel ni dañoo nekk sous ses ordres la même chose euh, Senghor bi mu écarté euh, Mamadou Dia nan la def motion de censure lañ def ñu utiliser parlement bi mu utiliser justice bi ñu écarté ko. la les mêmes pratique la Abdou Diouf doon def bi mu fi nekkee les mêmes pratiques la Wade doon def sous Idrissa Seck euh, yaa ngi fàttaliku euh, euh, déclaration accusation bi bi bi keroog Macky Sall mi moo ko defoon à l'Assemblée bi bi bi ñuy topp Idrissa sec donc gis nga pratiques yooyu les mêmes pratique la Macky Sall di continuer di ko def loolu gis aussi tant que mi ngi continuer réew mi fañ bëgg a dem du fa yegg mu ko il faudrait que la vraie séparation des pouvoirs am maanaam mu am une assemblée boo xam ne askan wi dong la ñuy déglu dégluwuñu exécutif bi bu exécutif bi di liggéey nag moom danañ ko accompagner jàppale ko waaye problème politicien moom mënta am assemblée. ñooñu askan wi rek lañ fa nekk mais mais loolu moom est-ce que mën ngeen ko fi dindi parce que ñëpp xam nañ ni assemblée nu muy demee cest ay parti politique euh, ñu si bëri en tout cas ci mbirum politique la ñuy yëngu ku ci nekk da ngay balaa toute chose balaa dara. sa intérêt parti sa intérêt parti mën ngeen ko am yéen ngeen bëgg. mais merci beaucoup soxna Assou gis nga nag jiital intérêt parti boobu. ci intérêt wu peuple bi moo indi jafe-jafe yi yëpp moo tax ñun bokk na ci combat yi nga xam nag dinañ ci dugg léegi nii mooy nag askan wi leeral leen danger bi muy indi ba léegi kuy parti politique moo xam ku nekk moos présidentielle ak opposition ñëpp nan leen xañ député askan wi ñoo ko war a jëlal seen bopp loolu lu ñu war a régler la ci gox yi. gox bu ci nekk ñi leen di jàppale ñu si bëri en tout cas ñu ñu gën a actif. ay ay politiciens lañ ba ci ñooñu ngeen soxla tey ñu nangul leen ko yóbbul leen proposition bi foofu ñooñu aussi dañuy politique. Ah, est-ce boo leen ci génnee tey dingeen am li ngeen soxla. mais absolument non c'est-à-dire dama ni dama ni euh, euh, citoyen c'est-à-dire euh, deux yi rek moo mën a nekk. ñu am une assemblée boo xam ni nit ñi jiitalatuñ seen i parti waaye askan wi lañ jiital loolu amuñu ci benn problème waaye ce qu'on a constaté mooy nit ñi jiitaluñu soxla askan wi soxla parti yi lañ jiital mais wax naa la am na ay exceptions. exception bi limal naa la ci Abdoulaye Wilane porte parole parti socialiste te pourtant ñoom benn boo yaakaar la bokk ma nga fa am ancrage bu dëgër ak ñeneen ñu mel ni moom xëy na ci opposition bi ak ba ci biir benn bokk yaakaar ba tey am na fa ñoo xam ne si askan wi la ñu ñoo ngi góorgóorlu ci loolu même suñu leen waree sanctionné sax mën naa ci lim le député maire de de de Diourbel actuel député maire bi mais moom def na déclaration ni moom day ànd ak am ànd sàmm ji koy ba yi sanctionné ko fi mu ne defuñu ko te kii sax. proposé wuñ ko woon et pourtant moo leen fa moo leen fa gagné moom la ñu reconduire moo gagné ci élection yi alors ñu mel noonu loolu laa la wax ni la lu mel noonu nag la askan yu war a promouvoir actuellement ñu fexe ba wut ay député yoo xam ne ñoom ñoo ngi leen di déglu te nekkaluñ fi ku dul ñoom mais déglootuñu exécutif bi c'est-à-dire bi foofu la jëm il faut ñu yee ci yee ci yee ci euh, euh, fëgg ci bopp nit ñi ba nit ñi yeewu ci. d'accord xam naa foofu la ñuy euh, jeexalee peut-être aussi wax ci bi ngeen ko dalee bi ngeen ko commencé ak léegi surtout ba ñu rejeté loi bi proposition bi ba ngeen nekkaat ci ba yeneen plan d'action tey lan ngeen jotagum ci ay retour mu mu nekk nag yu yu baax wala safaan bi nga xamante ni peut-être ay pression la ak yu demee noonu euh, lan ngeen jot ci ci ay retour mais bien sûr euh, bari na bari na vraiment mais li ci ëpp ak plus de 99 pour cent lu favorable la. lu favorable la nit ñi ci di ñu ñaanal am yaakaar. am ñoo xam ne sax danañ dem ba di def xëy na ay proposition ci nangam ak nangam ñoom gis nañ loolu xalaat nañ loolu donte ñun lu ci bari it li ma la wax nii rek ñun posture dugg ci langue politique moom gisuñu ko jàppuñu ni it moo jaadu ndax ànd sàmm jikko yi liy def saa force mooy mu nekk ci euh, combat citoyen yi moom mooy tax mu mën a fédéré ñëpp ñu bokk pouvoir ak opposition ñëpp mën faa daje donc loolu c'est très terewul nag danañ jot ay menaces danañ jot ay nit ñu lay saaga ñii naan la nangam ak nangam ñii naan la lu ne da nga ko jot mais toute façon yëf yi ak loolu ñu ne yéen def promotion bi parce que à force d'en parler toujours day mel ni yéen yéenay def la promotion. xam nga as loolu koo dégg mu wax ko rek xamul xam nga li tax xamul loolu bu fekkente ne loolu la man dama naan leen d'accord li ngeen wax dëgg la mais kon yàlla moo def promotion la bon ubbil alxuraan laa la wax tàmbalee ci baqara ba naa si ñaata yoon nga ci fekk ñu nettali ci lu bon lu bon boo ko xamul loo ko moytu. d'ailleurs looloo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam digle lu am solo mooy euh, man raa minkum munkaran fal yughayyiru bi yadihi fa in lam yastati fa bi qalbihi euh, euh, fa bi lisaanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi wa dhalika ad'aful iman su ngeen gisee lu bon lu ñaaw léegi loo xamul lu bon la wala lu ñaaw nan nga koy nan nga koy moytoo tey jii yow doo jël mukk par exemple ñu teg fii courant ay prise nga jël ndox di ko ci sotti parce que xam nga li mën a def mais xale bu ndaw sa doom wala sa rakk boo xam ne mi ngi toll ci 2 ans 3 ans mën na ko def parce que xamu ko donc ñoom nañ bàyyi wax yooyu gis nga iblis ay yoon nga koy fekk yàlla di ko tudd ci alxuraan gis nga nit ñi doon def lu bon ay yoon ngay fekk yàlla di nettali seen i récits di ko fàttali parce que ci loolu nga mën a sukkandiku pour moytu seen jëf ak moytu tamit ñoom la leen daloon mais ñi ñi ñuy reproché naan ñu ñun ñooy euh, participer ci promotion bi buñ ci participer ko it yàlla moo bëgg kon lu bon yaatu ci rek moo wax na ko ci alxuraan d'ailleurs ma dolli ci dolli ci benn benn mbir sax boo xam ne lu am solo la te nit ñi aussi dañ ko war a dañ ko war a bàyyi xel en 2008 ñi doon takk seen sëy yi fii mbaaw booba fekk na ensemble ji koy juddoogul mm-hmm. réalité la 2015 ñu bàyyi ba xoolal guddi gàmmu tey bu ñuy wax Sénégal diine l'islam mais ni ngay waxee Tiwaawan ni Touba mais noonu ngay waxee Kaolack la la famille Niassène nekk fa. doon kenn gu dëgër ci diinay lislaam ñu bàyyi ba kii boobu ciblé dëkk boobu ba noppi. defe ko ci milieu boo xam ne dañ fay yare ay ndaw dañu fay jàngale ba noppi tamit defe ko ci guddi mawlidu nabi mu daje aussi ak guddi Noël loolu c'est fort fortuit di takkante foofu loolu mu amul woon ci réew mi gis nga ko récemment rek ci jàkka yi la ñuy dem ci armeel yi la ñuy dem. donc loolu c'est pas fortuit. yow lu ñuy lu organiser la. mais exactement di tànn bés yi nga loolu kon il faudrait que ñu taxaw ci jëm ci indi euh, safara pour lan dissuader leen. te am na beneen élément soxna su bu am solo nit ñi dañ koy fàtte xanaa xamoon ne ñun ñi ñuy reproché sax naa ñu non bi ngeen jógee bay def criminalise euh, bay bay bay yëkkati li dugal ci nit ñi da ngeen a waroon a wax ku ku rey ñu rey la peut-être ñoom dañoo xamul ne yoonu réew mi dafa dafa dafa tere lool. ñooñ sax nga mën a gën a déglu tey jii ñun suñu seetaanee lii. vindique populaire bu ci amee ay nit jóg ñu sib suñu kenn wala ñu gis kenn rek daal di dem dal ci kawam wala ñu rey ko mais loolu est-ce que imaginer nga lan yan conséquence la mën a indi ci réew mi ki ni rey am nay mbokk loolu mën na indi fi mu ne ay représailles ba mën na indi fitna ci réew mi mais bëgguñu loolu par contre bu ko loi xisee réglé rek lu loolu su amatee dañuy bàyyeeg justice bi ñoom ñoo koy saytu toppatoo ko kenn du fajal sa bopp. donc surtout vraiment loolu bokk na ci li nga xam ne bëgg nañ ko trop. merci beaucoup jaajëfal bu baax a baax Babacar Mboup nekk euh, ci association euh, Sàmm Jikko yi moom lañ fi invité woon ngir waxtaanee li nga xam ne moo jëm ci seen mobilisation boobu ñu amaloon démb di leen jaajëfal yéen téléspectateurs yu 2STV les auditeurs de 88.4 et les internautes aussi yi ñuy suivre ci YouTube bi ak ci euh, Facebook bi merci beaucoup technicien techniciens yi jàppoon ci liggéey bu baax a baax di leen jox rendez-vous euh, demain incha allah ci beneen euh, numéro bu matin bonheur votre matinale qui vous donne une bonne raison de vous réveiller de bonne heure restez en compagnie de nos programmes et à demain incha allah